yal na nu teewe xutba gaag armal ga te bañ a wuute taaye jaag sëlmal ga waay jullee jumaa ci suuf di jaamu yal nañ ko baaxal may nu lañ daa taamu bi jaahi man yashfau yowma alxaqi alayhi taslima mumiiti alxalqi bil aali wal asxaabi far yërëm nu bi xaadimil muxtaari far gërëm nu cig ngërëmam ka tax nu xam jumaa ji moo kuy jullit li feeg julliy gën maa ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رديت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأحناني وأكرم به رباه ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس إن جاولي asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ci seen télévision alxadimiya ci seen émission bi ñuy tudde man baaxul uloom ñu ciy dalal ay boroomi xam-xam tey jii nag ñu seet si kenn ci mbokk yi nga xam ne xam nañ leen bu baax baax ci réew mi waa xam nañ leen ci bitim réew rawatina fii ci diwaanu Touba. ginnaaw ñaanal xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool tu wéral ko ak mbooleem kilifa yi diine yëpp ñu ngi leen di siyaar baax. ki ñu leen doon wax nag mooy Serigne Moustapha Diop kokki ñu fas yéene ñëw nag doon ganam mu doon sunu gan tey ci sunu émission bi ñu ko ciy dalal jàmm di ci am yaakaar ni nga xam ne moom lañ bëggee émission bi amee ko njariñ ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan yal nañ ko sunu borom defal ficcil ko aw làmmiñam te ubbi seeni xol te ubbi jubalal nu sunu làmmiñ ba leen ciy wax am njariñ waaye mu ubbil leen seeni nopp ak seeni xol ba ngeen taatan ci lu am njariñ kon dañuy daal di jox sëriñ Moustapha li nga xam ne moo di kàddu gi bu ko defee mu nuyoo ñu daal di dugg ci waxtaan waxtaan wi nag xam naa ne nga waxoon nañu waxtaanee tarbiyatu suufi yi yaakaar naa ne loolu lañ fas yéene waxtaan incha allah dañ koy jox mu nuyoo ñu daal di tàmbali waxtaan wi bisimilah sëriñ Moustapha.
asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. wallaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki lifta wahab li warsuqni min kulli aana dayqi asil aajilan bil bishri muhammadin xataa uqima diinillahi arkana يسير جوعي لطوبى واحمني وقني أضل الورى وتجب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد ما شيك بأنا أجيب وسلم بسلم حسن دي محمد ويعطف لي في القرآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي سيارة والخديمية جيني دي ميسر سرسل مامور توري xam naa xam naa de kon sëñ Saliou ña ngi kon mi ngi la laaj wala bëgg ñu waxtaanee lu rëy tarbiya suufiya loo xam ne mel na ne mel na ne xaw naa faragay ci ci suñu yoon wi yoonu murid bi waaw tarbiya tarbiya ruux yi sax kon lay doon nga xamante ne tarbiya ruux buñ ca duggee danañ leeral la jiitu woon ci ci ca mag ña ca Baxdaad ba ci Sëñ Tuubaa nañ doon yare gaaya muy lu am solo loo xam ne. bu amut widd day am matérialisme mu day daal di juddu nit ñi jàpp ne sëñ Tuubaa mooy matière sëñ Tuubaa mooy mooy ay tabax sëñ Tuubaa mooy mooy oto sëñ Tuubaa mooy jigéen te te loolu jéggi na ko wax yaakaar naa mu dugg ci ci waxtaan bi dana leer kooku kon sëñ Saliou kon bisimilah.
barkala mbokk yi kon kooku mooy sunu gan suñu Moustapha Diop kokki dégg ngeen li wax moom la lu dana waroon a wax ne tarbiyatul islam yi wala ñu wax tarbiyatul ruux yi am mooy séparé.
ok jàmbaar nga la la la ju am solo nga wax. question méthodique. tarbiya islamière dong nga amoon. noo ne ko noo ne ko imaamul Xasaali waxee. imaamul Xasaali ni mu ko waxee noonu ca Ihya téeram bu bu tedd ba. maanaam fiqul akbar fiqul asqar. diine diine islaam amoon muy liimaan lislaam lexsaan salaay salaam wàcce ko ko ci moom yonent bi alayhi salaam di dund yett yëpp ak ña nga xam ne ñoo ànd ak moom te gëm ko ginnaaw bi nga xam ne xare yi am na ginnaawam ngóor yi juddu yu baree bari dal di dal di amu ak wuute ñenn ñu nekk jóg kenn ku nekk coobare woon ne kii coobare woon ne man day daal tawxiid daal moom laa bëgg a dem gëstu ji ko nga xam ne tawxiid soo soo fa demee doo xam sax ba xam alxuraan ak sunna da da ngay teg fee di indi ay théorie nga xam ne ok daa dem falsafa dugg na ca fi Abdul Maamun daal waxi ko moom ba mu tabaxoon ca Baxdaad léegi nit ñi di di théoriser ndax ndax parti politique yi daal juddu xam xam nañ ne ahlu sunna li ñu tuddee ahlu sunna parti politique la bu bu tudd tudd noona sun sun réew mi am na ci parti bu tudd réew mi may wax ne ndax ndax ñàkk bokk ci parti réew mi dana la titee doon ab sénégalais ahlu sunna Muawiya radiyallahu anhu am mbooloom ginnaaw ba parti la boo xam ne moo yor booba ngóor gi boo xam-xam yëpp dem fi moom seet seet ko ci pouvoir yi rek fu mu ne boo xam-xam yi dañuy dem ci ñoom ndax bëgg a dund di ko layalal loola te xam nañu ne loolu sax mën naa jóyoog dëgg nga xam ne da nga digg sax turu parti bi sax ñu jokkaat ci wal jamaa ahlu sunnati wal jamaa booba jamaa mooy jamono ji sayyiduna al Hasan ibnu Aliyu alayhim assalaam wa ala jaddihi radiallahu asalaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam mu daal di ba mu nangoo bàyyi nguur ga bàyyi ko Muawiya ndax ndax jàppoon ne kat Muawiya moom daa ngànk ci nguur ga te te xëccoo bi mën naa indi jéeya moo daal koy bàyyee nga xam ne ginnaaw xulafaa raasidiin yi maanaam seen ginnaaw al arbaa sayyiduna Muawiya jamonoom at moomu nag ci la nekk ci ci la jullit ñi am benn imam ñu tuddee ko amul jamaa jullit ñëpp am benn njiit waaye ginnaaw Sayyiduna Xasan bañ ko boomee ca posone ko ci neexal soxna sax nanga moom léegi nag ci yëf yi daal di dugal ci bi ñu ñu ñu tàmbali nag parti politique yi ñi yëpp daal di jóg ne moom al imama ndax al imama mooy njiitul jullit ñi. daal di koy dugal ci biir maanaam léegi théologie aqida daal di ne kat force nit balaa doon ab julit day gëm ne kat njiitul julit ñi diw gëm naa ne ak nguuram dëgg la daa ne kon da ngay daal di gëm Muawiya soo gëmul Muawiya kon sa sa sa sa julit wérul am ñoo xam ne ñi xam ne dañoo we contre ñoom nga xam ne opposant yi ñoom it daal di ne kat képp koo xam ne da ngaa da ngaa ànd ak Muawiya sa sa sa sa pas-pas baaxul noonu daal. sufiyanke yi ñoom it jukk gis nañ ne gis nañ ne ñoom bu gaa yi dee werante théologien yi muy olamal kalaam yi werante ci yàlla am na ñu ne waaw ñu ne lu tax lu tax ñu ne am na ñu indi seeni lay yu baree bari bu bu ñu waxee loola ba noppi fuqahaa yi wax ne kat salaa salaam ma day lam fi indi woon lii la julli nii la nangam nangam te julli seen faloon lool sallu kama kama raytumuni usalli sallallahu alayhi wasallam dana woon man day seen a jibril moo julli mu julli ci ginnaawam mu jiite ma ma noppi ne ne gaa yi julli leen ni ngeen ni ngeen ma gisee nga gis bokk xaay yu naan farata julli gi am na nangam farata la nangam sunna la nangam man duub nangam yu gudd gudd yoo xam ne détail yoo xam ne sallallahu alayhi wasallam moom waxutoon loola bu sufyanke bi digloo ñaar ñooñu ba noppi mu ne ah yéen de kon nee ngeen yàlla am na ñu ne ko waaw am na kay sallallahu alayhi wasallam lii digloon ñu ne waaw mu ne kon maa ngi koy jëfi su wenkee daal di gudd moom école boo xam ne moom jëf lay wax rek jëf moom moom moom dooy wax léegi nag tasawuf daal di judd kon kon léegi sa salaat bi attribué islamique moo amoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ne parti politique yi judd nañ nag suufiyanke bi nga xam ne moom moo faroo ne man day lexsaan moomee lu may jëf ngir yàlla laa koy moo tax ma koy def wa ma umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu diin tey sunu waxtaan wi yàlla na ngir yàlla yàlla ko yàlla def ngir yàlla jotaay bi mu def ko ngir yàlla so so bu dee def na bu dee yàlla def na ko mu nekk ngir yàlla kon jotaay bi daal di tonawu bu dee du ngir yàlla jotaay bi sero la mook tuwaa bu bu nekk ca bisron bay waxayam amul njëriñ kon tër bi islaam lañ war na wax waaye bi bi jullit ñi amee problème ci la kenn ci maanaam ma maanaam parti jullit yi te muy suufiyanke yi daal ne ñoom day léegi ah gis nañ ne ñee day boobu xam-xam yee muy fuqahaa yeeg wala ma kalaam yi day ni ñu wudde dara waralu ko lu may ñàkk a jëf ngir yàlla imaam Xasali misaal la ca juróomi atam yu mujj yi wala fukki atam yu mujj yi ci ci la bay adduna koo xam ne Musaa toog ca ca Baxdaad ca al madrasa nisaami ñetti téeméeri boromi kaala mooy ñu jàng ba ba noppi ñoo koy wër mu leen di jàngal mu dem ba gis ne kat lii lépp du ngir yàlla ngir adduna la mu daal di mu mu daal mu daal di démissionné ci ci ci ca école ba daal di jël alalam yëpp saraxe ko di sol mbubbum ñaxas mbubbum Baay Faal maanaam léegi ay daggit yi nga xam ne moom moom la am ay daggit ndi ma lay boole ngir am mën ci am mbubb ñi nga xam ne jànguñu di bindu leetar di di ko fay ay dërëm mu leen di bind leetar ci lay dund bu noppee la ca des mu saraxe ko nga xam ne xasaali ko xasaali jamono jooja ci la bind ixya boobu mu doon wax kon attributs islamiques la ñu waroon a wax waaye nag problématique yi juddu ginnaaw isla sallallahu alayhi wa sallam moo andi attributs suufiya
alkala jërëjëf yaakaar naa ne wax nga indil nga nu nga xam ne moo di tarbiyatu islamiya ak li nga xam ne moo fi nekkoon mooy cosaan li li ko indi tarbiyatu suufi yi da nga jublu ci bëgg cee jublu tarbiyatu suufi yi muy sellal wax koy ihsaan sell la léegi nag li ko li nga ci wax nii léegi dafa mel ni dafa gën a kii parti yi bu ñu indee ne parti yi judduwaat yooyu yëpp ku ci nekk demaat sa ibtihaad joo xamante ni da ngay wane ne fan nga gën a yoon moom moo gën a gaaw ci yàlla te suñu borom dana nangu jëf ji loolu gis nañ li jur ci parti yi moom teqalikoo bu bare bare bare sàmmkat bi nag bëy yi dajaloo benn place ci la xelam di gën a dal fu nekk rek mu bëy jëm fa ak till yi dafa mel ni noonu nga bëgg a wax dafa mel ni sikut loolu sikut indiwaat sikut sikut wax maanaam maanaam sëñ Tuubaa bi mu dikkee ca fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jilani aw intama li ahmad tijaani aw li si- li siwaahuma min al aqtaabi kulluhum qatan ala sawaabi daa wax ne kat fekkoon na Cheikh Umar Fuutiyu Taal radiyallahu anhu doon xeex ci turu tijaaniya idéologie tijanisme moom la doon wéyal ci woote bi Saamuru Ture radiyallahu anhu mu mu mu am solo moomee moom it di woote ci turu tijaan yi atum na alxaadiriya xaadiriya tijaan yi di xeex tijaan yi xaadir yi di xeex te noonu baa ngi taxaw taxaw dañu ñu xaar mu mu tubaab bi sëñ sëñ bi ne kat yëf yi du ne xaadir du du ne tijaan loolu lépp moom lu wér la waaye sart bi nag mooy lépp looy dugg yow na nay loo xam ne du la génne ci diine wala yaxida na nga xam yow diine ba mu leer nañu fi yow tariixa ak woote booy dugg woote booba du la génne ci diine bu la ci bu la ci génnewul rek loolu du baax la waaye nag kon kon li ñu waroon a xam mooy ne lislaam mooy li ñu war a yittewoo waaye waruñoo yittewoo ay tariixa moo tax su Sëñ Tuubaa jaar ci tijaan yi xaajiri saasile jaar ci yëpp ba noppi nag daal di def synthèse ku dikk fi moom soxla xaajiri yi mu joxal ko tijaan yi mu joxal ko saasile yi noonu soo dikkee ba maaxus bi nga xam ne mi ngi ko mi ngi ko amee ca ca ca gànnaar mu mu mu jox la ko maanaam ni la yëpp a baax ndax yëpp ci yàlla lay yóbboo bu dee sart yi def nga ko kon mbir mi kon du ay tariixa waaye mbir mi mooy lislaam yaakaar naa yaakaar naa kon su su suñ tuwaa yeesal gi mu andi woon moom mooy loolu boolewaat jullit ñi donte nag mës naa ko wax ci bu yàgg daa leen nag suñ tuwaa kat masaalik bi bi mu ga- ci gàjjoon ginnaawam jébbi na maanaam la la mu bëggoon mu deñ lépp it daa mel ne ju judduwaan na ginnaaw ba léegi li waral waxtaan wi mooy ruu léegi da daa wéradi bismillah
xam naa foofu sax nga maye benn parenthèse. ci fan yi dégg naa benn audio boo xamante ni. jël woon sax waaye dafa xawatul am alaaka kii bi. mu ne ginnaaw sëñ bi wérdu yooyu yëpp ci yàlla la jëmoon. kon lu mu doon tëwër yi indi wérdu wérdu.
Maxuus.
maxuus. ginnaaw loolu nag ci benn waay laa dégg waaye loolu dafa alaaka ma bëgg.
Wa- ok bëgg seen na tase na maa ngi yow.
waaw ma am occasion laaj la.
ok ok xam nga xam nga du ne andi suufiyanke bi du andi da- dañ koy jox ndigal ku dem ba am ba am alaqa ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam itisaal ruux yi sa ruux ruuxam jaxasoo salaai salaam di la digal si tubaab da- dañ ko digal yàlla moo digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ko wirdu wi al wirdul maaxuus minallahi taala bi waasitati rasulihi la wax wedd bi yàlla yàlla ma ko jox jaarale ko ci ci ci ci cent bi kooku ndigal la ndigal la c'est c'est c'est su su ko yàlla joxutoon ndigal moom ñëpp nag sama tiyaan sarif si sama xaj ñoom ñëpp seen wérde ya ndigal la xoolal ca salaatul fatih bii nga xam ne moom la tiyaan yi fonk lool te tam fonk cheikh Mouhamadul Kurdi yi la ko salaay salaam jëkkoon a jox ginnaaw bi mu jox ko cheikh ma tiyaan ginnaaw bi mu jox ko sëñ Tuubaa loolu moom yàlla mu mu moo lay jox ndigal ne la kat defal nangam ndax kat sa jamono jii nangam moo gën a gaaw loolu moom ndigalu yàlla la sëñ Tuubaa moom ci coono ko ci day lanti noor la day jottale rek waaw.
naa nga wax jërëjëf ma laaj bi leer na xam naa ki koy dégg bu ko ñu bari nañ ci gindi ko leer.
dëgg la.
léegi yaa ngi wax ci tarbiyatu ruux yi. kooku seexu tarbiya bi nan la war a mel ba ñu xam kii tarbiya ruux moom it nan la war a kii nan la ñuy tarbiya ruux.
maanaam
ma laaj bi baax na am de.
am na soo ko loolu Baxdaad imaamul junne di salik nga xamante ne moo moo yeesalaat mboor ma sëriñ siqati yi mooy sëriñam maaro fa ni kër kër xëy yi moo mooy sëriñub sëriñam du di nijaayam yaa ngi seetlu ko ne kon imaamul junne bi day bu doon lu baax da ngay parparloo kon kon léegi nijaayam a koy tërbiya te ni te dongam nijaayam a koy tërbiya foofu lu am solo la imaamul junne di salik ñoom li liñ doon yittewoo mooy bon boni xol li nga xam ne moo lay mooy def sa kiiraay ba ba doo gis yàlla nga xam ne yàlla lu am mooma liy xew lépp mooma nga xam kattanam nga xam coobareem nga xam lim la digal te xam ne soo ko digul kenn mënut a dox digganteem ak yàlla yooyu la lañ doon gëstu kooka ci tënk sëriñub tarbiya mooy koo xam ne ay jëfam ay waxam jëmmam dalay fàttali yàlla koo xam ne du la wax lu may li yàlla bëgg ci yéen ñaar mooy ngeen jaamu ko sellal ko du la wax lu may li yàlla bëgg ci yéen ñaar mooy ngeen moytu tere yi du du la wax lu may li yàlla bëgg ci yéen ñaar mooy ngeen nangul ko lim leen moom gim leen moom lenn lu dul yàlla bëgg ci yéen ñaar mooy ngeen toppal ko sallallahu taala alayhi wa sallam mii mu joxañ ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana uswa ab royteef waaye xasana bu baax ci royteef yi bëri na waaye nag bu bu bu baax yàlla ñëwul leen roy leen mala malaaka yi waxu leen roy leen saxaaba yi waxu leen roy leen sëriñ si roy leen sallallahu sallam la wax ndax kooku moo am garanti moom ku ko roy su ëllëgee doo ko rëccu waaye keneen ku ko roy mën naa nekk daankat boo xam ne julli day jot mu ne lank naa julli wu ma fekk ne mën naa ma ngay jullee feneen yow yow kon boo ko toppee da ngay alku kon royal salaa salaam mi nga xam ne dana woon dégg moom bu julli gi jotee maanaam sàngar si naan lu mu ko gann gann du ko tee mu taqale xam ne que ki ko bindoon woote na nee nee na kaay leen liggéeyal ma te liggéey bi mooy julli na ko suñ fan lu waxee woon ne liggéey bi mooy mooy julli ko kooka kon sëriñ boobee bu doon booba ci jamono yi Sëñ Tuubaa bi fi nekkee nga xam ne booba leer gaa ngi gan ñëpp kàngam yu mag yi fees fi dal boo gisee ab suufiyanke piir nga xam ne kii mooma bu sa xol bi amee dara ci toq leer da nga xam ne kii moom ab ab ab ab suufiyanke la ñooñu si si si génération boobu dem na ba ca ba ca topp maanaam léegi ñooñu suub leen ci seen nañ meloon suub leen ci seen melowa génération ba ca toppaat bagage yeen yoroon bu dee xaal jëf jaa ko andi man naa ñooñu mënuñoo jëf wala sikrullahi moo koy indi amoon nañ ay bagage yu ñu jëlee ci ci ca ñooña ñu di ko joxalante ku ca nekk te sellal te teg sart ya tàmbalee xam ba ñu lay jox tur yoo xam ne sax bokkutoon ca yàlla mag ña jox lépp yàlla la koy jox nga xam ne muy ay tracé yoo xam ne ku fa jaar àgg coono ba la Sëñ Saaliw waxoon am koy laaj xel koom naa ko xel koom de moom ak tabax yi nag dongo yi mu ne ko waaw kenn ku nekk ak fam doge yoon wa ko doge yor bi ci ganos bi ak ko ko dogee ca rang-rang ba ak ko ak ko dogee ci tëri bukkut kon nga xam ne tur yàlla ya nga nga def dox kala koy jox nag am ci isne moo xam ci yàlla la jóge yonent bi salaam ak ku ku mu mën a jaar ci ci walla moom ci boppam da caa am isni ci ab sëriñam su boobaa moom moom mu xam ci dara ba boo ko doon liggéey boo ca amee jafe-jafe mu mën la caa gàgganti foofu nag am na fi am solo mooy lasraar ak tur yàlla bukkut ñaari ñu ñaari ñu bokk ndey bàyyi lañ waaw ci waaye bokkuñu de waaw lasraar ay bagages la yoo xam ne way ndari yii rek la nga fekk ko fii mu mu bàyyi loolu kër doom soxna jo dem fekk fa jàll waaye amut njëriñ xanaa de day yàq ak defar defar gi moom bëriwut dañoo wax ne defar ci lasraar yombul. la mu gën a mën mooy rey nit yàqub sayid nangam nangam yooyu la man xeex nangam tur yàlla nag moom da nga koy jëlee ci nitu yàlla mu xam ne fii ku fa jaar dara la tàggaleeg sa bon bon yi sóob la ca ngir ma loola mooy tur yàlla waaye bu bu ko bokkut ak lasaar jamono jii nag li xew mooy lasaar moo xew moom ndax nit ñi lu tax lu tax lasaar liñ soxla mooy xaalis waaw te tur yàlla moom kenn du ko wax nan nan xaalis. léegi nag lasaar nag mooy xaalis moom bëgg xaalis bëgg nangam bëgg jabar bëgg nangam yooyu moom lasaar ngay def ngir man man koo am kon kon daa mel ne nekkoon yor maa ngoog kon waaw.
loolu la wax. loolu nga wax tamit dafa mel ni. bu dee ci wàllu fi nga mujjee nii ci tomb bi. lasaraar. turu yàlla. dafa mel ni suuf yi ñoo indi loolu. te fi ñu toll yàqu-yàqu gi mu am wax nga ne masaalik bu sëñ bi di ko sëñ bi.
ginnaaw am ginnaawam.
waaw xam nga loolu. suufi yi ñoo indi loolu léegi au lieu ñu yar nit ki ci liggéey dem. liggéey ak ñu ko yonante bi waxee. waaye dañuy seet ne léegi lasraar ak nekk werdu yooyu moo doon seen gën a doon seen tarbiyatu bi ñuy bi ñuy gën a iftéwu te boo delluwaatee ci xaalis bi nga wax xaalis ku ko bëgg moom sa ruu defaragut ba léegi fekk yaa ngi koy xàmmee ak këyit yi rek daanaka rek.
ok maanaam sax lasaraar su su fekkee ñoom do- doxiwuñ ko déedéet lasaraar xam-xam la bu juddu ci asmaa yi ak xorof yi xorof yi arab yi loolu yàgg na xam-xam dafa yàgg la ca pharaon ya ca perse ya ca indo ya xam-xam la bu fi yàgg moom maanaam léegi xam ne araf yi araf yi tey bu ñu Moustapha Diop nga nga maanaam arafam yooyee mën naa cee jóg gi ba mën ko cee tërbi ba mën ko cee tàggat ba lu mu bëgg mu defal ma ko yooyu moom xam-xam la boo xam ne xel mu mu mu xorof la tudd. boo boo ñëwee ci Ibnu Arabi mi mi borom futuxaatul makkiya ma ngi ko cay leeral. lool araf yi doole ji ji ñu am ak ni ñu mën a soppandikoo ci dënd bi. loolu boo demee sax Saroq Cheikh Saroq ca xawaayanu tasawuf ma ma ngay tere naan téere al imaamul Buuni yi mooy ti téere lasaar la mu mu di ko tere tere kuy soog a soobu waaw. ko soobu ci yàlla warta warta warta jëfandikoo lasaraar loolu moom ab gàllankoor la kon kon su wenk yi ñoom ñoom ñoom doxewuñ ci lasaraar lañ la ñu doxee mooy tur yàlla waaw waaw
léegi yaa ngi wax léegi tarbiyatu ruux yi lañ wax léegi nan la ñuy dem ba xam ne nit ki defaru na ci ruuxam defaru na ak yan état fan nga koy jaarale ba àgg yëg ne ruuxam defaru na
sàng am na ko ko ma ko laaj ci al abdul xadim ndax doy na rek nga siyaare ab sëriñ mu jox la tur yàlla nga ne ca soo bëggee connexion ma ne ko ma ne ko sama bay dara wax naan gone yi baat yi yàlla baat yi ci ñuy waxantoo ci jamono ju ne day mel ne yàlla ko sànni ci seen seen xel yi mu muy firi seen jamono gone yi dañ naan diw de dafa bëgg lu yomb ma ne ko dafa am ju sàngam mu mu fi ñëwoon jóge barab barab sàngam ne ma ne ma di waxtaan ak man ci ci ci yooyu ma ne ko naa ma daal dama bëgg lu gaaw ma ne ko ah man de loolu xawma ko man de 81 ba tey maa ngi ci nii rek mu ne ah man kay dama bëgg loo xam ne ay bés rek ma ne ko ah man de loolu man xawma ko ma ma ma ne ko ci nga fekk am sëñ Saliou 1900 maanaam ñaar fukki atam ak yaar ci la sampoon daa lay tërbiya ba am juróom-ñeent fukki at ak yaar nga fekk côté juróom-ñeent fukki at ak yaaram yi ci nga bëgg a mel ne moom tey loolu bë bëgg lu lu yomb la te loolu yaakaar naa yàq temps la ndax doo ko am mën naa am waaw waaw waaw waaw loolu loolu moom da ngay gis waaju dem taxaw ca biskil ba fa ñuy fa ñuy fa ñuy peesee gerte gi moom bayitoon mu taxaw fa di di di ñeetaan xam nga kooku kooku dafa bëgg lu yomb su su bëggoon njariñ day dem def ni ni gaa yooyu di notti. dem wutu jiwam bay ca ba bay jotee waaye waaye daal di bëgg àgg ci yàlla moom kooku kooku kooku kooku moom cumbut li nga xam ne jamono jii suñu waa daa daa waxoon ca xoqane tërbiye day xaal la ak maqaal ñaari am na ñaari façon tërbiye mu ne bii am kàngam boo xam ne daa mat sëkk lam doon ba fees dell bay tuuru ku ñëw dëkk fi moom maanaam léegi da nga ci- ci ci bàlleem ndox mu mu mu sell kooka xaalam ba mu mu daal di koy tëbb branche le la kooku yëmbut kooku kooku ndax sax ñooñu dëgg boo leen romboon yow da da ngay leen di seexlu waaw nga xam ne taw taw feexe am- am ci ñoom dara képp sax yombut seen col ga dudul day xorom dañuy ñàng lool bakkan bi nga xam ne moo moo moo nu- moo yor ma- moo yor su su sunu nos bakkan ba du la may sax nga dem ak say dara sukk fa moom am na ko ma nettali ci dong ngay së- sëñ sëñ Mahamadan Jobbe yi ne sëñ Mahamadan Jobbe dafa àndoon ak benn eh, jëwrinam jë- jëwrini da- kenn ci jë- jë- jëwrini daara ji nee na bañ nee na bañ àggee fii ci banque islamique bi nekkoon am na garab gu fi nekkoon nee na mu fekk fa ak ak góor goo xam ne ma nga sol lu xorom ñàng lool sëñ Mahamadan Jobbe daal di summi mbaxana ma dindi kaala ga summi dàll ya dem raam nuyu ko ba mu noppee dikk daal ne ki ma àndal su su su su su moom de ki ma àndal kii de su ko neexoon mu fare dindi bi te di ko te di ko dikk dara xam nga koo xa xool na mel. nga xam ne moom yow koo mul tawfeex wala amoo bëti xol doo mën a xam ne kii dara la. léegi nag kon su suñ Tuubaa daal ne tërbiyee nag am na kon bil xaal bil maqaal bil azkar daal ne te ah, ginnaaw léegi xaal yombul maqaal mën naa am ku ku la ko wax. boo demee ba ci kanam adduna nga diggaat yeneen baat yoo xam ne moo moo moo lay naxale loola mooy la bil askar yaakaar naa askar yaakaar naa moo gën a dëppoo ak suñu jamono jii am soo jub kokki dem ca si Murtala ne ko man kat moom si Xaadim ne ko man kat da- damaa bëgg nangam saa maam yee saa bàyyee lañ nangam nangam bu daal di jël dara bind jox la ne la nangam ak nangam léegi sëñ Matu la laa kon jox na ma ab oto jox na ma aw fas jox na ma ab avion léegi ndax mën na ma dawal wala mënu maa dawal ndax ndax am naa sawarte dawal am am am dama tayel loola ci mbir ma ca lay tënku léegi ku ku mat sëkk jox na la lu wér cëng ne la boo ko wàccul àgg génneel fii jëm na jëm Ndakaaru soo génnee ba ci yo- yo- yoonu Mbàkke wa tëri bu mag ba ñooy la tëri bii de mooy route nationale mooy yoon wi nga xam ne boo ko wàccul da nga àgg Ndakaaru da da da nga jëkk a jot ñu jox la tab ne la Ndakaaru buñ doxee tuuti du du duutoo gis Ndakaaru yaa ngi gis ndul ak nangam nangam waaye bul wàcc rek yow soo doxaatee tuuti da nga gisaat Ndakaaru léegi da da nga da dootoo gisati ñu la njëriñ ñu la xombal waaye bu bul wàcc rek léegi si seen la moom jox na la ab joxañ boo xam ne boo ci téyee kon da nga àgg kon léegi askar yi kon loolu la am maa nag nan la ñuy xamee ni kii kat àgg na defar na defewut Cheikh Abdoul Ha- Che- Che- Cheikh Abdoul Abbas Moursi tontu na ko nee na kat yow mi nga xam ne say bët neexut jët kii ko wax xam naa Cheikh Abdoul Aziz da baax ma dëkkoon Maghrib dane dane ku ku say bët neexut nu may xameb sëriñ yow yow yow da da ngaa silmaxa kon nooy xa xame ma ma yoon wi banaan kii xam na yoon wa la ngay man kay kay ci ci ci kay mooy mu ne wut ab sëriñ bu la wutal ab sëriñ koo yaakaar ñu ko ba de daa bëggoon ko wutal ab sëriñ ku ñuy wax ku ñuy wax sëñ Chérif Sayer Fall bokk ci surafaayu Mauritanie yi moo doon jiital jiite woon na seen jiite woon na seen niqaab booba mooy mooy syndicat sa sa syndicat sërif yi ya ca Mauritanie ku amoo wàccuwaay la Mauritanie nettali na ma moom booba daa am ku ku doon wax ci moom dara ma doon ko wérlu man ba xam. ne ko sa ma ma ne ko daa ñëwoon booba fii fii booba Touba yàlla da dama boole nag nga xam ne damaa sopp lool xanaa yàlla rek waaw laaj na ko ne ko waaw sëñ bi yow sa digganteeg sëñ As Jaxate mii ñu xam rek. te sax xamuñu ko. mu ne ma sëñ As Jaxate de da nga faa ñëw ne ko damaa bëgg ab sëriñ mu ne ma bala ma bala ma laa tegtal kenn tegtal la sa sa bopp. loolu ëpp ñu la de. engagement boobu riir na de. te ke mi waxal xam dara. nee na ma nee na ma fanaan fa ba ba ma fa fanaanee su ma wan ma ca sëñ ëmsatu loo xam ne ne mu ne moo tax jël naa doomam mu jël sa sama doom te te tey doom yi sëñ as jaxate maga ca këram moom ca Tigmantine ca Mauritanie kenn ku nekk jox jox nga sa sa morom doom mu ne ma ba ba ñu xëyee ma ne ko dama bëgg a siyaare ji nee nee nee nañ mu yóbbu ma ñu ñu njëkkee sëñ Mourtala ba ma ko nuyoo ba ma ne ko ko fii de fii de baax na. man na man na ma kii ana si si Murtala ci la jokk woon. ku am solo xamante ne kon kat bi nga jokkoo nag ca kooka mm, mu jox la dara s- s- s- Sërif Sere Fall bëtam yu neex tax na jël na na doomi si ajaxate si ajaxate bëtam yu neex tax na jël na doomi s- s- s- sëñ Sërif Sere Fall léegi nag ke- ki nga xam ne moom léegi nag neexut bëtam bëtam moom neexut moom la nga xam ne moom la man mooy wut ku mu yaakaar yëpp ca moom wala mu wut ku mu yaakaar ne ko wutal ma ab sëriñ yaakaar naa loolu la waaye xam ne di di di defaru na defarul teew defaru goo yow loolu moom mu mu ta nekk
jërëjëf mbokk yi ñuy soog a dab ñu nekk fii ci kër sëñ Moustapha Diop Koki ci sunu émission bi ñu tuddee man baax looloom te nag ñu waxtaane tomb boo xamante ni bu xaw a kii la bu xaw a jafe la ndax euh, du ñëpp ñoo sóobu ci yoon woowu ñëpp lañu jaarale ci yoon woowu Euh, léegi sëñ Moussa li ñu bëgg a dikk mooy sëñ Mountakha ci discours am bi mu njëkk a toog xalifa général de Mouride wax na ne téere yi li nu lëjal li coono bi ni indil nit ñi defaru ci jaarewut foofu maanaam téere yi li ñu lëjal li ñu indil nit ñi ci coono defaru mënoon naa am te te coono yooyu du am téere yi nga indi nga xam ne benn masala di nga ci sonn coono boo xam ne te amoon na bunt bu ko gën a gaaw bëgg a waxee noonu xaw ma déglu woon nga waxtaan woowu wala dé- dé- déglu ko xam naa.
tasu fi tamit coono bi mu indil nit ñi ci xàjjaloo ci séparé wu ci ci ci yoon woo xamante ni yoon wi kenn du ko mën a euh, comprendre li nga wax léegi euh, fekk benn ni suuf yàgg mu toog ci garab sol bu moo xam di lekk mburu wala di yëy caaf xamoo ci moom dara gisoo dara loo mën a def tegtaloo ci moom yow pour mën a dolli sa diine wala dolli sa tarbiya yow du ñëpp ñoo ko xam li ma bëgg a waaw wax kay ma waaw leer waaw ko waaw rek.
waaw waaw ñëpp moo xam xam nga xam nga yàlla moo bë- si si Sëriñ Tuubaa nee na ñooñu nga xam ne kooku mu tuddoon ci ci ci sànq góor gu xorom googu Sëriñ Tuubaa mi mi mi tuddee almalaamiti yu na Mhm, mooy ne malaamiti yi mooy ko koo xam ne day def luñ ko yedde mhm, te te- ci saahir te defu ko Sëriñ Tuubaa nag ne ne ne ñooñu day ñooy ñooy ñooy mëcc sóob yi daal di ne ñu- ñoom ñooy umana ullahi fi ardi ñoom la yàlla dénk secret bi yàlla nag buur la moom buur la maanaam tey président Macky Sall mën naa jël si si si si Sall ñoom jox ko ab carte carte boo xam ne ne ko kat sama néew ba bu bu toogee ca jotaayam ba moo ko ministre ya bu dikkee ne ko sama néew ba demal nga indil ma fa garab sàngam premier ministre sañu ko kooku moom kooku moom kooku buur la maanaam yàllaa ko may moo ko jox doole jooju yàlla mi moom lépp nag moom su ko neexee mu denc fee wolof danaan kat denc bu yàlla ak denc bu dof ñoo niroo day day day béggandi ab dof day day day dem ba ca sën ba ci lay denc yàlla it buy buy denc fa muy denc mooy fuñ ko foogee wut ndax ndax lu baax bu yomboon ñëppam ko su si si sax gën defar ma daa waxoon ne koo gis muy dox mu di di wéy jërta laaj lu baax dong lay wër daa xamul fa mu ne loolu nag suñu borom nag moo moo moo ko bëgg noonu mënoo mënoon na yë yëf yi ne fàng waaye dañoo woon ëllësi na yu ñu ne bi bi rëy bi way gëm yi nga xam ne ñoom da- dañ maa gëm te gisaguñ ma dañoo gëm àjjana te te gisaguñ ko dañoo gëm sawara te gisaguñ ko loolu nag yàlla ko bëggee noona sa- sahabi boobee sa salama doon laaj kay fa asbaxta noo xëyee mu ne ko man de damaa damaa xëy doon aji gëm mu ne ko ah loolu kon mbir mu ne nag ko ko- kon aw- dana war a am dëgg-dëgg mbir ma mu ne ko waaw man de damaa xëy su ma xoolee sama ndajoor mel ne da- damay gis jàkkaarloog saw ajjana su sama càmmoñ mel ne damay jàkkaarloog sawara sa salama ne ko arafta xam nga fël zëm mooy ca loolu nag loolu nag kon do saxaabi yi boobu doxeen na boobu mooy doxeen na suufiyanke yi dem ba am maarifa wér li cëng ne yàlla am na wér li cëng ne ndigalam yii ko ko fi baal ko wér li cëng ne tereem yi ku ci nekk al ko wér li cëng ne ndigalam yii ku ci sax jariñu lool loolu képp la suufiyanke bi wax tur yàlla alaa bi sikri alaa bi sikri lay tarmi in xulóob sikkar tur yàlla day day tax sa xol dal ba lu ne nga xam ne yàlla dangay dem ba duutoo ñaan dara ku may yàlla surtout wàllu wax du ma ñaan ku dul yàlla taalal sama loxo bi ku dul yàlla loolu man da da- dama koo jàppee bokkaale dama ko jàppee alko léegi nag loolu moom suufiyanke bi moom moo gisee noonu ne man kat yàlla dama indi ci kaw suuf ngir ma nekkal ko fi fi toll tër bu suufiya su amoon président Macky Sall toog ca palem ba balaa xëy dana dana dana def ab ab dog sikar wedd ba muy wedd ci xaw ma ci ci wedd ci wan lay war a wedd wedd ba muy wedd ne ca bu tëddee guddi guddi gi yàlla wan ko ne ko président kat suba dana am nangam ju ju am ñu ne ko ñu ne ko loolu kon nu may def mu ne ko mu ne ko da ngay saraxe nangam wala da ngay jàngalu dog sàngam président Macky Sall daal di xëy daal ne ah bii de wan nañ ma nangam te te te su borom nee na ma kat defal nangam loolu bu doon amoon na yaakaar naa kon tànk-tànk yu bari kon mënatan na tënki ko waaye nag bu dee nag dañoo am président boo xam ne xamuñu ca loola dara am sëriñ soo xam ne ñoom it xamuñu ca loola dara bu gag amee kan mooy gàgganti suuf yanke bi li mu bëggoon mooy am relation ak kaw ak suuf suuf li fiy xew ci ci kaw lay jóge balaa xew ci suuf ñoom ñu yëg ko yàlla ma may na suuf yanke yi may na may na gaa yu baax yi nangam de dama ko bëgg a indi ñu ne ko ah borom bi lu tax mu ne dafa am ku def nangam ñu ne ko ndax amul lu la ko mën a wecci mu ne ah kay ku mën a toggoo nangam mën naa koo faral ñëpp te teg ko ko wala ku def nangam loola mën a deñ booba suufiyanke yi loola loola lañ daa jëriñ day xëy nuyu nuyu ak góor mu ne ah daa mel ne day tey de soo soo mënoon a def nangam day baax na misaal sëñ Tuubaa daana tere waa këram yi soxna yi ñuy buub bisu gaawu ke man ah man de gisuma ko ci sunna digguma ko fenn ci téere yi sëñ Tuubaa moom loola du ko wax publiquement ndax su ko waxee publiquement borom xam-xam-xam yi laaj ko ne ko sëñ bi foo ko jëlee waaye waaye ñii mu yëf ci këram ah bu leen di bale bisu gaawu loolu xam-xamu basin la boo xamante ne ki ki gëm sëñ bi ki nekk ci cëgronam mu mën koo ko sànni ndax yow xëy xëy nga nuyu ko na sëñ bi de man de xanaa daa bëggoon a dem ci kër ga ndax ndax daa bëggoon a bale sama kees ga mën a déet te tey lan gaaw na tey de moom mat naa teet loolu nga ne sëñ Muntaxa wax na ko noonu loolu kay mooy jamono yi sallallahu alayhi wa sallam waaye jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo gën ci jamono yi naafiq yi yan foon isaa jaakal munaafiquuna kon kay naafiq yi ña nga fa ba ñu am aw saar suratul munafiqin nekk Madina mun a war a ala sa gërëm suuf si am ginnaaw jamono yonent bi sax moo débutoon jeneen jamono mu ta jàkk kon téere yi la jël na lijjanti na waaye lëj-lëj bi dëgg mooy nit moo lëj nit bakkanam bi di ko jiital.
yonent bi amul woon ay fiq jàng fiq jàng naxu jàng tasuuf jàng kii nangam.
lu ko waral nit ñi ci sunna rek la nekk. léegi téere yi jàng lu nekk ñu ne la da nga ko jàng.
déedéet jamono yonent bi alayhi salaatu salaam xam-xam daa juddu woon ma dina defoon a war a sa sa sa salaam ci la yebal si say say dum saabit ne ko de ci diwaanu ne ko damay jàng ngi mbind ndax leetar yi yi koy jóge fu ne di di ñëw bu bu koy tontu daa bëggoon a bind mbind moo xam ne boo demee ñooñu xam ko salaam ma mënut a bind saxaaba yi xamuñu woon bind. ca asaw ba badrin ya aleykum ridwaan otage ya saa salaama daa waxoon ne ku ku ci mën a jàng ci otage yi nag ma ñëw jàngalal ma nangami nit waaw waaw waaw ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ci xeex bi léegi ku ku mën a jàngal juróom-ñeenti nit ñu goreel la ñooña di ña ca mën a bind mën cee jàng jàngal ca saxaaba ya kon kon madinatu munawwara booba xam-xam booba daa xewut booba li xew mooy salaay salaam lépp moom lañ koy laaj salaay salaam amut temps nag di di kalaase xam-xam yi bu borom xam-xam yi nag bi xam-xam juddoo nag ginnaaw si yonent bi alayhi salaam al musannifuuna moo mooy borom xam ñooy kalaase xam-xam ah waaw moom limaan islam lesaan waaw loolu moom mooy lan ñu ne ah limaan de mooy tawhid ñu ne ñu ne luy tawhid am jóg di ko gëstu am ñu ne islam mooy lan ñu ne xanaa jëfe ndigal yonent islam ñu ne kon loolu kon mooy fiq xam nga fiq ci arab muy muy foofu mu dégg nu nu léegi fiq léegi mokkal lay firi ñu ne ihsaan ñu ne mooy selal ñu ne ah waaw am jug ne man de maa ngi gëstu ji loolu loolu loolu borom xam-xam yi ñu ko indi adduna day développé murid ji tey murid gi xam-xam yu bari dana ci juddoo ëllëg su xam-xam doxee ci biir murid gi jamono yi yàggul rek da- dañ laa wax naan naan si seefaal nee na si suñu tubaab bind na kon li ma ta bind bind na ko waaw am am ñaan suñu tubaab li li ma ta bind bind na ko li ma ta wax wax na ko seefaal li ma ta jëf jëf jëf jëf na ko yooyu booba moo xew booba waaye léegi nag xam-xam daa judd léegi question yu bari daal di juddu ñu ñu mën a classé xam-xam yooyu kon léegi jamono yu Madina moom xam-xam booba salaay salaam moom mooy man baxul ulum moom képp a xam ku dul moom xamoo téere yi ba ba mu téere di ko booba alxuraan sax booba kenn dajale gu ko sax ci ci ci wenn feggu ba ñaan ab téere booba téere amul saa salaam nag génn ne seen Seydina Omar mu yor tawraat mu mu ne ko lu mu doon lo- loo yor ci ci sa loxo mu ne ko xanaa tawraat mu tàng jër ni ko man andi naa leen ko mu mu tey xepp kon booba téere amul booba kon nag xam-xam moom mënut a ñàkk mu am bu lëjëlee it liggéenti na waaye léegi léegi bi dëgg mooy nit moo lañ
léegi nan ngay déggee fii suñ bi wax ne. yonent bi da ko wax ne ko rabbi asxaabi fihim wala tu rabbi bi darsi faqat.
faqat waaw nan ngay déggee loolu.
kay jàng baax na lool waaye ñi jàng sun jàngkat yi ñoo gën a bon ñi jàngut
parce que am na de.
si kut jàngkat yi ñoo gën a bon ñi ñi jàngut ñi ñi ñi ñi jàngut ñoo sell ñooy joxe addiye bu ñu wootee xel koom ñooy dem bu ñu wootee ci industrie ba ñooy dem lu ñu bëgg ci lislaam ñoo koy ñoo koy taxawal waaye ñun jënguñu ka jàng nag moom loo ko wax am na poche bu mu ca mën a génne te it bu ne la jàkk da da- dana xool ba xam yow li ngay wax mi mi ngi ci yow wala am nga am nga darajey war a wax li li ngay wax kooka moom ma ngi nekk diggante booba iblis laanawullaahu ba mu xoolee ca law lawul mahfuus yàlla bind cee ne kat danaa bind mbindeef moo xam ne ci ban ak ndox danaa digal ñëpp ñu suyootal ko ku ko sujootalut alko nga waaye kenn képp moo ko dul su- suyootal iblis da topp xam-xam ba ba yàlla ne su- su- usjudu li aadama suyóot leen iblis moom di- di xaar ba xam kan moo moo suyóotut ndekete moom lay doon de aka dof waaw ba ba bañ xaar na na naan comme jëm waaye comme bay ku ku ku yàlla doon wax fool xool xool moom képp mu taxaw mu daal di yéeg ci suuf mu ne mu ne ñëpp a sujjóot illaa iblis aba daa bañ ndax ginnaaw ndigal la defu ko te te de moom daa xamul ne boobu ndigal ndigal nag mooy ndigal yàlla waxuma waxuma su ndigal yi de ni ndigal yu yàlla nag nag laa wax.
li nga wax di nga bëgg a wax.
ah dama ne ndigal yi ahlu tasawuf fii nga bëgg a wax kay wax wax kay ndigal ndigal suufenke yi nga xam ne ñoom da da dañaa la yàlla nee na sëñ Tuubaa dara wax naan ma laaj ko sa borom génn loola wax waaye waxuma ndigal yii moom léegi abaa ba sëkk bara ko bañ ndigal loola da ngaa da ngaa réeréelu ku réeréelu ci réeréelu alku la sëñ Tuubaa waxoon ci njëriñ ba kër ga jommee mu laaj ne mbaa lépp génn na ñu ñu ne ko lépp génn na ba mu des saako xorom mu ne lu tax génn ñu ko dafa diis mu ne ko kon mi wow ko diis ci bala fi léegi nag suuf yaa ngi nag ñoom ñi woog ñoom li li ñu doon def mooy defar nit ki ba nga xamante ne bu yàlla diglee ñu xam ne leneen ndigal amul njëriñ suñ suñ suñ tubaab ba muy leeral ci julli na ceen ceen julof naan mag ñi su ngeen diggee allahu akbar xam ne lu lu ñu firee ne li ñu firee mooy yàlla màgg na ba baat ba bu ci bu ci- bu ci toppaat da koy feddali daal daal di ne nag su ngeen diggee baat boobu la muy wax mooy lu ngeen nekk lu mu baax baax dégg ngeen lu ko lu ko gën daw leen jëm ca. sama bàyyi nee na sëñ Mbaye si la bëkk ne nee na ko kaddu gi ma mujj wax joxal ndeg sëñ Tuubaa nee na da- da- damaa jëm ci ci eh, kees ci néeg bi mu nekk nee na kero kero laa mas a gis mu toog ci ab lal kero nee na mu daal di nuyu asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam comme doon ma ne ko ma ne ko Mata Sylla ñu ne allahu akbar mu ne lu mu doon ma ma ne ko xanaa nodd mu mu ne daw leen jëm ca nee na loolu laa mujjee wax ak moom kon def ndigal yi la ndigalu yàlla yi waaye waxuma ndigalu bakkar yi nag waaw macha allah kon suufiyanke yi daal foofu da ngay yëg ne suñ bi fi mu nekkoon waaw
lu leer naññ la.
waaw loo ci gisaat loo xam ne dëppoo wut ak sunna rek. luñ sos ginnaawam la.
sikkuut suñ sos ginnaaw yaa ngi wax ni léegi. am na ñuy jàng ci taarixu yonante bi. umu salama nee na baat bi ma mujj a dégg ci yonante bi mooy taxawal leen julli.
ci na ci baat yi ma yow.
Ci nga wax ne xut.
kii.
Waaw.
suñ bi nangam.
Waaw.
léegi yaa ngi wax léegi tudd Macky Sall ne nangam. wërdu doon jëkk am wërdu wu muy wërdu wala nangam. wërdu wi li ko nit ñi jàppe mooy jàng alxuraan. yow nga bëgg a nekk sufiyanke bi ne day jox diw sàngam ne ko wér dal lii bu tayee mu ne ko bàyyil loolu wala mu ne ko yokk ko wala mu ne ko wàññi ko loolu loolu ci lan la koy def lu lu bokkut ak alxuraan lan la koy jox ban tarbiya moo nekk foofu ci ruum ah am na awraad yoo xam ne alxuraan la maanaam la la ma lay wax mooy lu ma xam lay wax ko kon ca loola man mii sama wedd yi nga xam ne mooy sama bokk na ci sama awraad yi dëgg dëgg dëgg dëgg bis bu set ab aaya alxuraan lay wer la ab aaya sumut laa lañ ci kon ab benn aaya lay wedd nangam ab lim dañ maa wax ne ma nangam dee ko li mu la laajoon cëslaay fooy indi mu la la woon bu ne la woon mu la la woon cëslaay li mooy lan di- di- di- loola man la engagé amana rasul bi ma unzila ilayhi yonent bi gëm na liñ ko liñ wàcce ci ci ci moom wala mu ñu ne ñi topp ci ginnaawam kullun amana maanaam man mañ ko wax maa gëm man mañ ko wax maa gëm ne lii la ma ne ca ma ma ngooy ca sëñ Mourtala joxoon ma nangam ma koy def sëñ Mourtala imaam la man sama imaama su su sëñ Mourtala damay wér ci ne sax da da li ma bëgg a wax sax wóoru ma ko woon a wax ndax sama maam Aminta Diop daa ma si si si Tubla daa ma soxla yàgg na war naa jur quatre-vingt wala yooyu wala quatre-vingt nangam waxtaane magal gi nii ma ma ne ah ma ma ma ko diwul nii. boo boo si si si si si waat bu ñu nee bu ñu nee mi ngi mi ngi dana wax ginnaaw ginnaaw kii laa doon jaañu kii bi noonu
journal journal bi ñëpp koy fuglu si si sëñ bi wax ma ne ah ma ne wax dëgg de sa sa sa sa maam ne ma tuub ko tuub ko kooku kooku kenn du wax ñu naan wax dëgg suñu sooy nee nee na ci ci Mauritanie ab sëriñ naar bu doon waxtaan do do doomam ne ne ci ci sëñ Tuubaa doomam ne ko baxin. ne nee na mu daal di koy bes teel ne ko suñu suñu daaw bi ko wax kenn du wax baxin est-ce que kenn kenn du ko wax. sëñ Mor sëñ sëñ Mor Talla damay gëm ne moom dëgg rek la. damay gëm ne kon moom du ma nax bu ne ma nangam la ma gëm ne loolu la daal daal daal ciy dox wéy nag na ngi faw. ko- kon tur yàlla yi ña koy joxe ñoom di ay suuf yanke ñoom ka kañ koy jox dañuy xam ne xel kii gëm nañ li li mu wax ñu jox ko. way laay sonal nga leen ñu ñu jox la ko boo gëmee jëriñu soo gëmul do- do- doo jëriñu ñoom am nañ ci is ñoom am nañ ndigal ci ci yàlla wa- wala ci ab yoon itam wala ci ndigal ya na mu jo- jo- jokkaloo ba ba ba ca borom bi nekkat nangam ji koo ko def am nangam nangam am nangam ji nag mooy am yàlla am yàlla nag mooy saxel dal ci ci ci yàlla mooy nga xam ne lépp lu am yàlla tey ak ëllëg kenn mënu fee yëngal dara mbaa mu teg ko lu may yàlla
sëñ Moussa ñu ngi ci gàttal jeexaat émission bi. yaa na am na su ñu doon waxtaan nga ne ma am na benn taalibe boo xamante ni pour ci tarbiyatu ruux bi nga doon wax rek. nit ki bu ruwam jatroo. nga ne waa ji benn taalibe boo xamante ni. ko demoon bay bëgg céetal. di ko labat as ndaw. sëñ bi am lu mu santaane mu bàyyi céet ga. jël xaalis bi ku jox ko ko. loolu dañuy tegtal la nu ku defaru moo mel noonu ku àgg ci tarbiyatu ruux.
chikut salai sallama ca jamonoom benn saxaabi dem na ca marché ba di waaj a jë- jël ak céet maanaam jël alalam ci war a jëndi bagage céet ga dégg ñuy ñuy yéene ne kat sa salai sallama dé- déclaré na na guerre mu daal di soppi loolu moom daal di dem dem jëndee ko yére ci ci ci xare bagage xare kooku mooy ko defaru koo xam ne xam nga dafa am lu yàlla wax loo xam ne daa mel ne ke gars yi ba bàyyiwuñu xel inna laa shtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum waaye mi mi mi ne moom moom ñu la wax de. wa waxul muslimin yi jënd naa ci way gëm yi yi ma gëm seen bakkan ak seen alal ba ne lahuma janna ku ma gëm ku nekk alal la mag bakkanam bu mu bu mu fekkee sama ndigal loolu nag moom mooy su su su suufenke ya su su suufenke ya bu bu sëñ bi soxla woon loo xamante te te ne da da da- daa jëm ci kër ga tey muy muy muy defar suuf suba sëñ bi soxla ko fàtte nañ defar suuf suba kooku kooku nag kooku nag waaye nag sëñ sëñ Ibrahima Diop almachan yi nee ñu daa wax lu am solo daal di ne ko xamut luy ñëw ëllëg ba mu joxee bay fàkk ko suufenke yi ñoom dañoo xamoon ne su sëñ Manar sa sama maam maam Ousmane Matar daa wax naan sëñ Manar bu ma saa toog da- nga laaj ko dara mu ne ah balaa ni nii daal ne ah man de xanaa bu bu doon jaaro bi de xanaa ma ma mën a wa war xaalis nee na bis ba xaalis ba day jóoru xam nga xam nga kooku mën naa joxe nag bay fàkk moom kooku kooku kooku dafa am connexion comme amul connexion nag da ngay sabablu defi pexe lo lo loolu day yoon wax li waaye daal kon daal dafa mel daal li gën a yittewoo mooy koo xam ne gëm nga ne ab suufiyanke nga da ngaa war a jéem a doon waliyu waaye di siyaare di ma ko ñëw dong kooku amul njëriñ dama daa wax sama rakk yi naa leen ñu wër di siyaare si ay boobu nag am may man de man gëmmu loolu man li ma gëm mooy dem nga jariñ ma nga jox ma waaye dem di siyaare jox xuma ko damay dem nga jariñ ma nga jox ma nga ne ma yoon waay yi nii aw ci am li ma am waaye xawma rek man di siyaare ka ñëw wax nag daa am ñoo xam ne ñoom altoppali doon ñoom sëñ bu nekk ñoom dem toog fa ñoom ñoom ñoom bëgg ñoo dem fenn ñoom ñoom daal dañoo bëgg witlu sëñ ba man nag dama bëgg a doon sëñ ba bu dee sëñ ba gën la ma.
ay sëñ Ba man waxtaan bi moom xam naa de xaw na diis si man xaw ma sax question yi ngay laaj doo xam ne tasuuf moom dëgg yàlla ab sëñ la boo xamante ni xañ ne moom da cee naan ba nekk ci géej gi te man naanaguma sax man jëlaguma sama kopp léegi nan la ñuy terminer li ngay gis ci internet bi. ñuy dal suufiyanke yi di wax loo xamante ni nga mujj rek doo xam lu mu doon. ci suufiyanke yi ñële di tudde seen bopp ahlu sunna wal jamaa wala ñu tudde seen bopp tur wu nu mën a tudde tur yooyu sax bari na loolu tur yu bari yi nga xam ne dafa tasaaroo ba ku ci nekk jël sa kuréel nangam mel ni daal booy xool daal doo xam la ki ki jàngul ku amul niveau jàng mënoo gindeeku moom fekkee ci wax rek ak fatwa ngay déglu ak fii bu tayee nga mën a fóolu matiku fee bu subaa nga mën a kii ak yu ñaaw yooyu ok xam nga xam nga tamit bi salafis yi su su suufiyanke la la sayyiduna Isa alayhi salaam waxoon ne bu bu leen sa sa sa noonu pesee jox ko lex ba ca des. benn suufiyanke ca Baxdaad ñëw di seere am moroom moom suufiyankeem su su su su suufiyanke bi ne ko ndax gi ngaa gis yàlla mu ne ko déet bi may ñëw rek pes na ma moom daa jàpp ne am na bakkaar bu mu def ba yàlla di ko ko fàttali. am na ci magi murid yi ko ko waxoon daa fàtte ci turu turu ba sama bàyyi da moo ko nettali woon ne dañ koo laaj lan moo gën a luy luy tasawuf mu ne mooy xaqiqa mu ne xaqiqa bu yeesee sariyaatu du am liggéey sama bàyyi ne mel ne dañ ko laaj ni ko lu tax mu ne ndax ñettee ne du ñu tooñ te ku leen tooñ ñu jëggal ko xam nga xam nga kooku su fekkee service nag moom dalay xool bugg lu may gis ci yow ayib mu wax ko te te loola mooy ci alxuraan wala mu jiifoon a fil madina ñi nga xam ne ñoom xamuñu lu may njaaxum yu ñu xam seen moroom jur képp ñu génne ko salafis yi moom dëgg yàlla yaakaar naa daal ay ay nag mais kontaan lañ ay mais kontaan ñu ñu ci dégg ñëpp mais kontaan loolu nag loolu nag sëriñ si ci lañ. sëriñ sëriñ si si si si si yor yor wi yor doole ji ci yor baat yi ab jàngkat. politique bi ñu war a jëflanteeg moom maanaam wóor ko ndomba ba du ba du soxal kenn jox ko alal yoo xam ne dana mu ubbi ay daaram nangam kon du wax dara waaye nag nit la doomu soxna la lu tax muy doomu soxna jàng ba ne ar gars yi xam ne dañoo sant ñeneen maanaam santuñu loo santuñu jóob léegi ñoom yor alal ji di fas fas lu tax kooku moom ab mee kontaan lay doon. lay jur loolu moom sëriñ si ñoom gone yi jàngi di bitim réew ñëwaguñ na sëriñ si ba xel lool loolu ci si ñoom mën nañu mën nañoo soppi ko de ndax xéewal gi ak siwul ci seen loxo loolu la moom loolu moom problème sëriñ si la daanaa wax sëñ Salim sëñ Mourtala ak sëñ sëñ Rafa may may leen bu leen bu leen natt nit ñi ci man man bëriwuma bëriwuma maanaam man bu ma nekkee ci ci ci ci ci yoon wi benn mbakke mbakke du ma jariñ dara li ëpp ci ñoom benn mbakke mbakke du ma sax ci xajoo man may sëñ Bamba piir rek gëm ko rek kooku yombut sëñ bi kooku yombut de bu leen ma ne ko bu leen natt nit ñi ci man man man ciment laa benn yoon laay tooyee xas naa fendi loolu loolu loolu solo la service yi nga dégg ñu wax noonu wax dëgg yàlla mécontent lañu jërëjëf sëñ sax xam naa waxtaan yi ñu waroon a tëddee dëgg dëgg sax am na question yi moo ko dëngal noonu.
waaw waaw waaw.
dara waaye teewul incha allah rabbi ni am jariñu na. da ngay gis ne fi mu soobu ci tasu waa laaj bi benn laaj sax dina indi maanaam lu jiitu wala moo indi laaj bi rek lu ñuy indi day gis donc soog a ñëw ci laaj bi. léegi ñu ngi lay sant bu baax a baax ñu jox la nga tàggoo incha allah rabbi lan ngay tëjee noonu.
kay li may të- tëjee nag mooy kilifa yi yi- yi fi wàccub liggéey sëñ Pape Malick Sy so- soxna Fatima Niass Zahra Niass ak ak ak ak xalifa ci ci ci cene booba Cheikh Tidiane.
Cheikh Tidiane ak ak ak ak ak ak ak borom xam-xam boobee di konti woon danaa ko fàtte di saaxoon dañu dañ ba saaxoo Tafsir Sakho.
si ta- ta- tafsir Sakho ak ak ak ak ak ak kii kii fi jóge ba ba kii bii Bamba, Bamba Bamba Bamba Ndiaye xam naa ne ne weer wi damay wax ne weer wi day xorom na lool ndax we- weer wi ñi ñi ñi ñi fi wàccub liggéey ci ñi ñi ñi ñu joxañ daa bari kon kon kon de yàlla na fi gëj lool amiin amiin amiin.
yàlla na fi gëj waxtaan wi lépp loo xam ne it ñagas na ci ci ci comme comme ñagas na ci ci ci ci ci ci moom. mu xam ne jombul ku ku so so so samay waxtaan ku ku ko miin la da doon def benn waxtaan suñu benn kër kër tali bi ab ab yaan jaar fa bu ñu bu ñu noppee mu ju- mu mu laaj kàddu ma ma jox ko ko. mu daal ne ne man de tijaan laa da damaa romb waxtaan wi. dé déglu ko ma taxaw ma ne kii de xam naa ne waxtaan wi amu ci intérêt moo moo ma tax a taxaw. waaye yaakaar naa ku ma ku may déglu. da nga xam ne sama sama waxtaan amu ci intérêt ndax intérêt ba yaakaar naa moo doon wa- waxee neen kon maa ngi maa ngi maa ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha li nga xam ne ne ne mooy naalub sëñ sëñ Bamba bi mooy mooy ay daare xam-xam yu rëy a rëy yoo xamante ne kenn du du du du jigéen xam-xam maa ngi ngi ñaan yàlla sottil ko coleet ñun ñëpp ñu fekkee ko ànd ak ànd koog moom te say saytaane bañ caa amu ëpp cër asalaamaaleykum taala aleykum wa rahmatulah.
mbokk yi jërëjëf yéen ñi doon topp ci sunu émission bi ni ànd ak man Baol Ouloum ñu àndoon ci ak sëñ Moustapha Diop ko ki ñëwoon fekk ko fii yaakaar naa ne dégg ngeen waxtaan bu baax waxtaan la woo xamante ni nag li ñu ci jublu mooy nit ki mën a xamaat boppam xamaat boppam mooy li ko indi ci àdduna mooy mu def ko mooy jaamu yàlla jaamu yàlla googu nag dafa am lu ko téye ay ay ay kii yu ko téye yu ko téye mooy lan mooy sellal mbiru muy sellal amut rek daanaka jëf ju neen la mbir moo xamante ni sellal nag mi ngi tàmbalee ci yéene yéene ju sell bu yéene sellut rek dara du ndax yéene moom dafa mel ne day weccoonteeg aada booy lekk sax bëgg a regg te yéene woo euh, kii yéene woo ko boo dee julli te yéene woo julli gi ngay julli ne sellal lu baax nga mook lekk gee rek diir ñooyam doo ci am benn kii kon ñu ngi sant bu baax suñu Moussa di ko gërëm incha allah duñ fi gëj ndax waxtaan wi tamit dafa bokk ci waxtaan yi ñu war a waxtaanee buñ gisoo yàqu-yàqu yu bari am ñàkk gëm tasuuf ak xam li tasuuf di def loolu moo waral yàqu-yàqu yi ndax tasuuf bu la yaree say cër day yar ba saw xool yi nag saw nekki nag yëpp waxuma la nag ngay yëkkati genn kàddu gu ñaaw di ko teg ci sa moromum jullit kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Mbàkke moo nekkoon ci caméraman bi ci caméra bi sëñ Mbàkke Mbegere ñu ngi siyaare bu baax tamit ki nga xam ne mooy réaliser émission bi muy sëriñ son bu sëriñ sëñ Maam Mor Touré ñu ngi koy siyaare bu baax kon ñu leen jox daje ci beneen jataay asalaamaaleykum wa rahmatullah